non kii maa moom moom mooy loolu noonu Babacar bu dee wax kese moom kii li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko nag dañu ñaan yàlla le premier xam nga daa jàpp ne daaw da daw de blessure bi loolu la jàpp de waaw du moom kese nag waaw du moom kese moo jàpp loolu mais yàlla xam na daal hmm. du daw no pour la ñuy daw yow lekk xaalis ni mu neexee yow nga war a bëre ba pare jot reliquat tabaski beeg yooyu noonu loolu ni mu neexee di ko daw xaalis ni mu neexee bu dee defet ñam nañ ko kon kay defet waratuñoo jaaxal. ñaar est-ce que man dafa mel ni daa am lu ngeen bokk la de. luñ bokk la amaana taalibe la rek mooy taalibe <laughs> waaw la lañ bokk. yéen a niru style tamit. bandi la booy booy bandi la de. gën a ne bandi moom kii tarkindaa bi xam nga dara ñaa kenn xamu ko le premier lañ koy xam. dara ñaa mooy lan yow itam. le premier déggoo li la maama di wax xanaa. waaw bëgguma booy bi di ma xam nga di ma wili paan ak affaire yooyu noonu laa ciy bañ quoi waaw. warul am affaire boo xamante ni da koy génn gars yi naan luy loolu. moom dépassé na foofu su niveau bu mu toll. moom dafa war a génn loo xam ne su la la bu génne naan lii lii lii mais ay darnañaa darnañaa yow yaa ngi wax darnañaa mooy la loolu tax nit xam nga xanaa sa sorcier bi mu ñàngal so kii de mooy taali taalibi say la hmm? ak garaaw Baye Fall ni yow hmm. ndànk méttiwul de confiance bi ngay dégager maama lu ko waral non man yow Babacar ku ma xam-xam ma ci lii man boo ma waaw man dëjë ngente laa yemale waaw ci yàlla musal mais moom la ñu jamale ñun ree moom moo ñëw nga jàpp ne yàllaa ko dogal ki maam serafal ñun lu ñëw dañuy jàpp ne lii mbégte la waaw parce que àdduna lépp mbégte la waaw mais nag kii man mënul tax ma ñàngal kii bi day gaawal day noonu loolu day dépendre ci moom du nee na day ñëw ah. dañ man may ñëw ñu daje rek damay ñëw moom waaw kuy daan man maa ngi ñaan yàlla ma yàlla may ndam man maay daan bu la premier la premier daal nga xam ni. Babacar. le premier may daan mais na xam ne loxo. Basile daan naa dégg ñu ne góor a koy na xam ne. le premier loxo dina xam nga moom ja jàpp na ne saa ñu toll nii. loxo dina dem loxo bi oh, oh, oh, loolu moom leer na àddina. yéenay borom le premier décembre na. lool moom leer na ma. xëccoo ngeen ko kenn. non duñ ko xëccoo kenn. mu mel ni Fallou Ndiaye defati na dara de jëmale ko ci yéen. wax dëgg yàlla ah. maa ngi koy félicité quoi parce que jeune bu am. waaw waaw loolu leer na <laughs> xam nga gis nga rek jàmm daal yàlla jàmm yàgg quoi falu Ndiaye di ko félicité xam nga incha allahu rabbi bis bi yàlla na ci am lu kawe njortam te incha allah ki mu tuddee bis bi mot na ko quoi incha allah dina gis beneen façade bu soobee yàlla jour bi. mais man li ma lay laaj sa diggante Kéba ba tey mu jël lu bis bu toll nii yabal na yaa may représenté lu ne seen diggante. waaw ànd bu sincère bu dëggu boo xamante ne xam nit nag mun na ànd ak ku ne. mais nit da nga war a xool ñi ngay àndal parce que man ma ànd ak kii tey suba ma ànd ak kële man damay bëgg bu ma demee ba suñu ànd ma xam ne lii du dem rek duma ko du ko fësal maanaam dama koy jëlee demi mesure te ànd demi mesure baaxul day suma xarit di suma doomu ndey duma ko nëbb dara du ma nëbb dara di profité waale di nuyu soxnaam su baax wax dëgg yàlla ndaxte ku muñal keebaa la te ku baax la ku am yar ku am diine muy Marème Fall di nuyu doomam suma xarit muy Mariama ak Rama nga xamante ne ndeysaan suñ ma gisul sax ci kër gi dañ na ah foo ne ñëwal wala ñoom ñu ñëw suma kër xam nga di leen nuyu rek de incha allah rabbi di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci bis bi ak jàmm que le meilleur ñaar ñoom ñaar ñëpp sumay xarit lañ xam nga waaw damay tëddee njaaxanaay rek. mais démb man dinaa cof dara. mu doog ama xamoon naan di ci jëm. mën a ñàkk. lu rey mbuum dee ca. <laughs> waaw mais loolu loolu xam naa ne ñi ci war a waxtaan ñu ngi ciy waxtaan. mais gars yi dañ ne Ama da leen a ragal de yéen seen waa loolu la ñu wax waa Parcelles ma ragal moom ah, xëy na xëy na ñoom xam nga affaire yi moom ku nekk ak ni muy analyser affaire yi mais amaana moom moo xam li tax jëlu ko mais daal xam naa ne combat bi waa Pikine soxla nañ ko waa Parcelles soxla nañ ko li ciy tag ak li ciy ñuul. yàlla na yàlla saafara lépp rek ba combat bi taxaw bu soobee yàlla bu taxawee. pare ngeen pour wàññi seen kase yokkal ama pour ngeen bëri. pare nañ lu raw loolu ma wax la dara combat bi lu mu jaral waa pikin jaral nañ ñun lu ko ëpp waaw bu ko neexee Modou kase biñ koy fay na ko téye man ak samay morom bu soobee yàlla ak yonent bi lu ci war. danañ ko def danañ ko taxaw fañ ko war a taxaw ndaxte man dëkkuma parcelle ñu bëri dañuy yaakaar ba fu mu dëkk man maa ngi juddoo Kaolack màggee Grand Yoff Demba Saalum Saalum la waaw bu la neexee nga ne Saalum Saalum laa. bu la tamit nga ne booy Grand Yoff la ne loola ci neex nga wax. mais fi nga waxee léegi dama fay dellusi. Moodu buñ ko fayee na téye lañ ko fay te maanaam. yéen ay nitam ngeen def li ci war maanaam yéen kon leen déggee ci côté koom financièrement yéen a gën a sax pare Moodu. mais ma wax la dara Moodu ndamam mooy suñu ndam gàcceel suñu gàcce la te yàlla na ko yàlla musal ci gàcce mais bu Moodu daanoo dañuy wax Demba Xarañ Lo daan nañ sa nga nu ma sant. moo jaaxal ñëpp. ñëpp Demba Xarañ Lo la képp nag. man dama wax sant. kon Demba Xarañ Lo googu su Moodu daanoo. daa daanu su Modou taxawee daa taxaw fi mu toll nii man maay roi des arènes. mais est-ce que Ama financièrement daan na ko li ngeen yaakaar leen nax. financièrement ak moralement ak physiquement ak lu ci laaj bu soobee yàlla ak yonent bi Tafa Diop ak ñoom Assane ak ay ñeneen ak ñeneen ak ay ñoom Demba Jama Ama am na Demba Jama. Jama ban. Demba jamaa Jama mel bu Ama la waaw man devinel Demba lan laa. Demba xarañ. nu def. xarañ day xarañ muus la yeewu. sur l'incontournable l'international Demba Xarañ Lo. cey Demba ngi borom cité nag bu la premier nag bu soobee yàlla dinañ gis mobilisation bu doy waar. Demba di ci woo waa Temax club waa génération xarañ waa xarañ moo ñu boole di ci woo ñoom Libaas ñoom Pape Dieng ak dooro Sall ak ñoom Liiru Jaan parce que dama bëgg drapeau bi mu nekk drapeau bu mucc ayib maa ngi ciy woo suma xarit yi suma am ni jàmm képp ku gis lii jàppal ne. mooy sa lettre de soutien ak sa lettre de lépp d'invitation sa lettre lépp daal lépp. kontaan ci yow dem. loo kontaan ci man benn kontaan naa ci. kenn day yow. Papa njaay kaay waaye Tafa Mbeng taxawal. Fallou Ndiaye nag yoxosu nañu maag Lamine waaye Tafa Mbeng ngi Fallou ngee ñi Ndiaye production lañ bokk Tafa le premier lamb joo xam ne da ngeen ko tëggoon mu yàqu ngeen war ko tëggaat tudde ko Keba Kanté lu ngeen ciy waajal pour le premier yéen waa njaay production. waaw sant yàlla rek yow Babacar am na loo xamante ne duñ la ko wax yow yaa ñu gën a xam suñuy mbir yoo xam ne yow lu ñu def ren yow bu déwee ne ñu dàbbali ko wala ñu def lu ko raw yoo xam ne moom chaque année moom bu ñu yokkul du ñu wàññi moom combat bi defoon nañ ko daaw boole ko ci yeneen combat mu yàqu loolu la yàlla dogal bii nag comme combat bi dong la nga xamante ne kon mënta nekk benn sax. da ngeen koy gën a yokk daal. amul sax ma dem da ñëw lañ defoon lañ yaakaaroon ci combat bële ba wul noonu ci bii lañ koy fayoo. ticket yi ñaata lay doon. ticket yi waaw pour l'instant nii nag coordonné gu ma ak gars yi malgré man maa war a yor billet yi mais yegg seegul ci man fu mu nekk nii quoi mais xam naa fii ci kanam naa ci xam dara bu soobee yàlla. sëñ Fallou bëgg naa la. waaw maa lay fay Babacar. waaw lu ngeen di waajal pour le premier. non ñu ngi waajal lu doy waar. le premier moom wax dëgg yàlla. ku yéex moom doo am place bi. waaw doo am photo xam nga ne Mamadou Lamine Jokal moom ñaar ñoo xam ne la moom dañoo am mbooloo macha allah. promoteur ndaanaan la Fallou Ndiaye moom nañ ko ñaanal rek man li may wax chaque jour rek dañ koy ñaanal rek ndax moom wax dëgg yàlla moom mi ngi góorgóorlu kon ñun ñu topp ci ginnaaw moom duñ def lu dul di ko ñaanal rek waaw yàlla ma dolli ko kàttan daal jokkeel Mama Lamine ñu tëggoon ko daaw mu yàqu ren ñu war ko bëréwaat Lamine ñaari mbëri techniquement noo ma leen di jàngalee mu ma a wax waxu Papa Ndiaye techniquement ñoom ñaar ñëpp mën a bëree comme ni ma ko waxee sànq ci biir rek day song xeex day song tamit day xaar Jokal mën na combat bu yàgg mën na combat parce que daan Tidiane Faye Babacar ku mun bëre même boo ko daanul sax mais bëre Tidiane Faye jàppante ak moom Tidiane Faye indi indi attaque bu doy waar ak ci combat boobu ko seetaan rek bi di nga gis ni combat boobu Tidiane na ci doole mu bëre ak moom bëre ak moom ba 25 minutes yi jeex mu am dam ci kaw loolu ku munul bëre doo doo bëree noonu parce que Tidiane Faye boo doon lim tey ñi dàq bëri ci làmb ji donte nekk na ci ay jafe-jafe. mais boo doon lim tey cinq mille techniciens ci làmb ji da nga ko ciy boole mais nag làmb boo naqarilee rek mooy loolu kon daanan la waaye nag dafa tase xale boo xamante ni instant bi dafa décidé am ay motivation yoo xamante ni mi ngi koy am ci nit ñi fi ñu ko teg moom xëy na moom jàpp na ni eggu fa sax mais nit ñi comme ñoo ngi wax ni champion la rek loolu daf koy motiver ba chaque instant mu ngi entraîné te làmb moom entraînement la Babacar waaw. Bour Gueweul combat bi mën nga ci xaar xeex bu sax ak gaawaay. Babacar maama Lamine daa am lu mu mos. lu mooy yoon. yooru yoon. yoon la mos. waaw parce que gis na li mu def saison daaw ak daaw jéeg bu njëkk bu dee daan nga seen maama Lamine da nga daan gis maama Lamine bu xaw a brouillon pecc mi sax ku gënoon a intéressé ak ambiance bi ko bëre bi mais bi mu daana bébé julli daaw jéeg ñëw daan dar daan Bour Sine dafa commencé prendre conscience li que moom làmb ji ndekete mën na ci lekk ay millions. waaw daan Youssou Ndour xam nga xale bu jugee foofu et ju doo ci quartier les plus dafa maanaam défavorisé de la région de Dakar gis tey ak ñoom Siteu tey lekk ci millions yi yii tey mu gëm ni que tey bu poursuivre yoonam mën na ci yegg Mama bu njëkk daan na bëree mais violence bi bëree léegi loolu moo jaaxal ñu bëri mooy dalay rëppatal attaqué la xeex ak yow imposer la li ko tax a jug donc Mama moo nar a relever le défi mais Jokkel au contraire moom moo ne ci risque Babacar xamul ndax dafa demoon dans les cours des grands daaw bëri na fekk góor a gis nga na mu ñàkkee combat ba neexu ko parce que daf ko ñàkk avec la manière donc impérativement dafa war a daan Maama Lamine waaw moom Jokkel pour mën a rester waat ci même position ci même loo bi mu bokkoon parce que kële mu ngi soog a jóge ci gune yi di yéeg ci mag ñi ki mos na ci gune yi. soit que day daan resté ci place mbaa mu mbaa gën a gi daan ko rek mu dem ci guddi. Ama Baldé Modou Lô. Ama Baldé Modou Lô loolu la ñëpp soxla ay eh waay nañu ci dimbali. Ama ay taxaw ay buur Ama Baldé Modou Lô. Lamine Lamine jege ñun fii Lamine Ama Baldé Modou Lô da wax ndax. dañ ko bëgg leen ci Babacar. waaw Ama moo ne woon Modou Lô. waaw soo demoon ba am cent ans yor ay beeke. foo ne nangu say beeke bëre ak yow moo ko waxoon. defe naa nag ku mën a nangu ay bekkee jàmbur xaaroo ci cachet. lii nga gis. ñoom ñaar amoon na fu ñu daje woon ba pat mosante. Manzil Balde moo ma ne ci làmmiñu boppam moo doo ko daanu donc bor lu mu tudd bor la boru cent franc boru mille ak boru dix mille am bor bor la tudd. amaani nan ñu may lii. amaani ci cerse la ma daan. waaw matul matul matul seconde. waaw matul seconde dañ koy fayeeku la. bor fayeeku war na koo de. mais nag fay ko quatre vingt millions. arrangé wu ko promoteur bi na waxaale ak moom. comme jubo na ak Modou Lo na waxaale ak moom ba jubóo ak moom parce que tamit ama combat boobu Babacar du combat bu yomb de. yaakaar naa ko la dafa laaj wàccaay surtout mu jóge ci ci année blanche xam nga mbër bu mbër bu ak ak ni muy dundal xaalis bi moom du demeti noonu ci kanam. nañ ko fay nañ ko fay 100 na ko. Babacar ci neex a faral dimanche ak ak doomi bu ndaw ak neex ay buur bés ay boobu bés man buur bëgg naa loolu Babacar maa la ko a bëgg nañ ma ko jox Babacar bu ñu dogalee mu neex bu ñu dogalee Babacar dañoo war a dogal waay dañoo war a dogal Babacar rawaas rawaas lay doon rawaas kan eh, la bëgg a dégg ah, ma ramas ngi noonu gisal tànku ndeyjooram ah, eh, eh, bu ko kenn jaawale tànku càmmoñ teg ah di songu si dee ko jaawale buur ay Talla Ndiaye ko jaawale ñu ramas la waaye yàgg maa